yàlla buy defar day mel ne buy saboote waaw yàlla buy defar day mel ne buy yàqu waaw yàlla bind ci géej bari na loole moom yàlla li biir àll bey bari na loole moom yàlla naa ni ñëw

faal ku deet naa yi waaw waaw ii duul muy bu hub ba tax na yaa ngi ndaa bu njëkkoon kuwe Seex Saar danu lay génne bu moomoo ku misik moomoo danu lay génne danuy waaliyeera wulee ñaani ngañ yee jam farima naa ko yee yoo ye maay maay maa ala gay naa ko yow far bay ndeer yow duma ko wey waaw waaw waaw seex saa nga dem naa jël ma samba a tureer na wii tàggu na sama yaay mumu tàggu na wii ni ma wel ay waay ni ko baax yaay di ñàkki noonu maam gaay jàngi jootati na sege sege gi baay seex saare mumu ndeke laaw dana xëy ba si kële ñëw ndeke laaw dana xëy ba ñëw ab auditeur ak auditrice ak fu waay mënti nekk ci àddina na ma jàppale rek te yàlla tax ndax fi mu ne ku may jàppale yàlla rek a tax nga di ma jàppale ndax man lu ma sama bopp dara bay ma kenn dara moo tax ma di leen ñaan ñu di ma willaay wa rasuul yéen nag dama leen a sant dama leen a gërëm may dund dama leen sant gërëm leen may dee dama leen sant gërëm leen yàlla mi am jàmm tey def jàmm yàlla yàlla def jàmm ci yéen seen rajo bi yàlla nekk télé ba fu waay toog di ko gis gis nga fi may tëdd sommier bi ay weñ ngaa ci def di ci tëdd mat laa bi daa màtt ba yàqu bi ma koy may pompe naa ba dee gis néeg bi yéen a ko gisal seen bopp tapis bii bâche la bu ñu ma indi loon pour mu lal ko ci kaw ndax taw bi ma ne leen man ciment bii may teg sama tànk bu dagg bii neexul ma jël ko nag lal ko ci suuf di ci tëdd lu ma waay dimbalee te yàlla tax billaay sant naa ko gërëm naa ko lu ma waay mën a dimbalee rek lu ma waay mën a dimbalee maa ngi nii damay jënd ay garab bis bu ne damay ko jiiroo garab yi fu sedd laa ko mën a def su ma mënta am ku ma sarax sagaru frigo mu sarax ma glacière ma ko jënd glace ci dugal garab yi garab yu bari day yàqu léeg-léeg ñu may garab mais garab yi day yàqu ndax ma ko denc gis nga fii néegu cinq la day tàng fii laay yendu fauteuil bii ma toog gis nga ko ay bant kese laa koy weñ mu ngi nii loolu leen ñi daj yéen su ma jugoon ndax mën na maa jug taxaw di ko xool léegi mën na maa jug jàppandu taxaw franka bi su ma amoon bắt ba đọc nào ấy, waaye aw ma tànk là ăn một cách làm rek laa am. tànk ban année lañ ko dagg yaay daaw rek lañ ko defar mhm. waaye du tànku original tànku kii yooyu la rek ñuy fabriqué gisoo ko nii dàll bi ñu ciy doxee mbaa du la def ay problème wala yooyu daf ma daan di ko góom sax gisoo xaaj mhm. day def ay góom damay fekk bay bëgg a dee mhm. waa hôpital régional nag gërëm naa leen sant naa leen docteur yi dañuy kaf ak man di rek man di ma dimbali di ma toppatoo yàlla leen yàlla fay gis nga lii la tànk bi gis dama ñaanoon sax ku ma inscrire ci bato bi fii ñëw ndax ma am ci tànk pied couche la euh, ndax ba ma waxee ñee prix biñ ma wax dafa cher mënu ma koo fay awmu lii dañuy tànk bi yow su ma jugee léegi di nga mën a photo chaise bi ndax man na maa kii goto taxaw su ma demee docteur bi daf ma naan lu ma lu la tee tax ma ne ko ñàkk lu ma yóbbu ca centre ba ndax defal nga ma këy mais toujours da ngay fay ak sa puus-puus dem ca centre ba war a fayaat biir si déplacement yi dafa metti te fii gis nga ko lépp may man di kii gis nga waaw nag yéen mungkin. nañu xam nga mag ci daanu. docteur bi def ma ni moytul daanu ndax boo daanoo te mën nañu la daggaat. bon bukan moom coono yi egg egg na ko. coono yi Bukan dia? ko. mais ñun bu ñu lay liggéey dañu am waaw ngeen liggéeyee ba ngoon ñu fa ma ma tëdd bu ma xëyee génn ngeen liggéeyaat loolu la ndax pour ma dem di nekk ak ay nit dafa néew. ko nekkal déranger parce que ñun dañuy liggéey guddi nawet ko. waaw bu ngeen même bu ngeen dee liggéey man du ma nelaw guddi bi doom damay jullee ka toog ak a jooy ba set ndax damay feebar ba set. waccu laay fanaane siw ma sori damay waccu xam nga yoo xam ni da war a def ko ci dafa metti léegi lancé wala appel waa Zik Social waaw waa Zik Social nag dama leen sant gërëm leen may ñaan képp kuy auditeur wala ngay auditrice su Social wala ngay seen soppe wala nga reconnaître ni yàlla dong lu nuy liggéeyal ngeen jàppale yàlla ngeen jàppale yàlla ndax sig social yàlla rek la fi nekkal nekkul fi keneen ko dul suñu bopp te bu ñu matoon fukk ci réew mi rek réew mi defar fukk rek bu ngeen ko matoon ci réew mi réew mi yëpp Sénégal li ngi réew yëppay defar kon yàlla mi leen defar yàlla na yokk defaram bi jaay na bi ci sawar bi kàddu bu mujj mooy sant leen gërëm leen ak di ñaan képp ku mën a dimbali ma may sagaru fu boobu bu may tàngalee ndox mi ndax léeg-léeg damay soxla ndox pour naan dara wala dama gën a am tànk bi mais aw ma ko ma loolu mooy sama kàddu bu mujj tey ñaan seex saama man ki ma